الله بالمصطفى سنديدي الله وبخليلك إبراهيم يا الله يا الله بالمصطفى سنديدي الله وبخليلك إبراهيم يا الله وبكلمك موسى صالح خدر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 mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bu ñu sante yàlla julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feddaliwaat sunu yaakaar cheikhuna ahmadul xadim ñoo ngi ñaanal sëriñ tubaa cheikh mahamadul muntaxa yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal gën a dolli ak wéram di ñaanal bu baax eh, sëriñ jili mbàkke xalifatu daaru salaam di ñaan sunu borom mu may ko fan gudd wa ànd ak wér-gu-yaram ziare rakkam di sëriñ Abo ibnu Cheikh Mouhamadul Mamoun yàlla na leen fi yàlla gën a boole yàggal te gën a dolli seen ak wér di beral siyaar soxna Daba Mbacke bintu maam Cheikh Anta di ñaan sun borom yàggal ko ci kaw suuf lool te dolli ak wéram lool ziare mboolem ak di ci teg soxna maam Anta Mbacke bintu Cheikh Mouhamadul Mamoun Mbacke di jagleel ab siyaar nag borom ëtt bii ñu toog di jàmbaari lislaam ki ko fi nekkal di Serigne Cheikh Anta Mbacke xalifatu Serigne Modou Rokhaya ak rakkam yépp ñu ñaan sunu borom dollil ñu leer yi sëriñ Mouhamadou Rokhaya dolli ay taw tawféexam euh, yàggal fi njabootam nag tàmbalee ko ci sëriñ Cheikh ñu koy jaar baax soldaaru sëriñ Touba boobu di siyaare Cheikh Mouhamadul Mamoun rakkam euh, ak mboolem ñu topp ci ginnaawam yëpp di beral siyaar soxna Ami Gaawaan ak mboolem rakkam yi jigéen yëpp bokk yi ñu ñëwaat ak yéen seen émission ëttu murit di jaajëf lu baax njabootu sëriñ Moustapha Sy gi ñu dalaloon. tey jii nag ñu tabbi ci ëttu murid saadix di ëtt boo xam ne borom ëtt bii li mu bokk ak sëriñ Touba amul genn wet gum ko génn ci kër ndey wala ci kër baay di borom ëtt boo xam ne borom ëttub xam-xam la di ëttub murid saadix di jaamakatub yàlla waaye di yarekat waaye di liggéeykat di murid saadix bu tàmm joxe addiya lool di jàmbaar nag yoo xamante ni foo ko tuddee àdduna bépp xam ne jàmbaar la di boroomu fit waaye di boroom jom di borom jikko di borom makaarimal axlaax kooku lañu fas yéene fàttaliku di Cheikh Mouhamadou Rokhaya Mbacké moom mi nga xam ne bu ñu doon lim ay jëfam xalima yi danañ damm daa yi danañ jeex waaye doo mën a matale mukk sëriñ Modou Rokhaya lim jëf ci kaw suuf ak ci lu baax ci nit ñi ak ci jaami yàlla yi ñu toog nag tey jii ak euh, sëriñ si la Diwane mu nekk ci sama loxol càmmooñ sëriñ Modou Thiam nekk ci sama loxol ndijoor euh, alaaji sëriñ Takko Wadd nekk nii teewal fi fédération bi nga xam ne moo lëkkale mbooleem euh, xidmatul xadim bi aju ci Serigne Cheikh Anta Mbacké ak Serigne Ahmadou Sylla ak bokki taalibe yi nga xam ne ñoom ngeen di jàkkaarloo ci sunu ginnaaw ngir waajal bisom bu tedd bi nga xam ne moo ko xalaatoon ci atum 1983 bi nga xamee ne Daaru Salaam toog na at moo xam ne Serigne bi joxu leen lenn ndigal Serigne Modou Rokhaya ci la waxoon ne murit buñ ko joxul ndigal sañ naa laaj ndigal ndigal loolu nag moom mu sosoon mooy feddiliwaat addiyey daaru salaam ci sëriñ tubaa mooy at mu jot ñu woote fii ci daaru salaam ku fi nekkal sëriñ tubaa ñu dajaleel la addiya yët la ko loolu sëriñ Modou Rokhaya moo ko initié ci atum 1983 ginnaaw bu sëriñ Modou Mamoun joxe woon addiyaam yu rëy yooyee di million mu tegoon ci ak almet ci jamonoy jumaa ja million ak téeméeri junni ba muy jënd tapis jumaa ja waaye loolu ba mu matee nag 1968 ji sëñ mu sëñ Modou Cheikh Mahamadul Fadal dem àjjana Cheikh Abdoulaye toog di xalif général des mourides 1969 Serigne Modou Mamoun dem àjjana 69 ba 83 nag la Daaru jëkk a dajale ngir dajale addiya teg ko teg ko ci loxol ki fi nekkal Serigne Touba yàqutoon nag seeni liggéey ku ne xam ne ne njabootu Cheikh Mahamadul Mamoun ci njiitul Serigne Modou Rokhaya Serigne Abdoul Ahad jox na leen ay liggéey yu bari moo xam muy liggéey ba ca biir kër Serigne mu euh, Abdoul Ahad ga ca biir euh, jumaa ja ba ca biir euh, këram moo xam muy jënd tappi jumaa yi Touba te loolu ku ne xam ne ne Serigne Modou Rokhaya jënd na ko ñetti yoon ci nekku Euh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ci ak xilaafaam moo xam muy liggéeyub Touba Belel ca njëmbatum nimaama mooy xam muy yokkub jumaa ja lu mu ci mën a doon sëriñ leetarub sëriñ Modou Rokhaya ñëw na jóge ci Cheikh Abdoul Ahad mu ànd ko ak ay rakkam yëpp ñu jëfal ko sëriñ Touba ba dégg waa góor yi sëriñ Touba 1983 nag la wax ne képp ku fi nekkalati sëriñ Touba saa yu ci àggatee at mi nañu daje lu ñu dajale ñu teg ko ci loxol ki fi nekkal sëriñ Touba mu joxal ñu ko sëriñ Touba lu kooku lañ fas yéene waxtaanee kon damay bàyyi ak sëriñ Cheikh la mu nuyoo sëriñ Modou nuyoo ñu daal di tàbbi nag ci biir waxtaan wi nga xam ne yéen a ngi toog seen émission Ëttu Murid auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala seydina mawlaana muhammadin al amiin wa ala aalihi wa sahbihi sawi ridwaani wa tamkiin assalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi ñuy déglu bokki jullit yi ñuy seetaan ñu ngi jël sunu nuyoo di ko sof ci nuyoo Serigne Fallou Gallassi la ci gàttal rek di delluwaat kàddu gi ba mu suñu tàmbali waxtaan wi. auzu billahi mina sheytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursaliin sayidina mawlana muhammadulil makin wa alihi wa ajmahin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi Eh, ginnaaw bi nu sante suñu borom subhaanahu wa taala julli ci sangu-sangu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dellu jaajëfaat baax a baax sayxoon ahmadul xadim ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo bi gën a sell te gën a màgg eh, ci diggante juróom bokkam tamit asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di eh, tàmbalee ci ñaanal cheikh mouhamadul muntaxa suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko waaye ñaanal baax a baax sunu jàmbaar ji fi nekk di sëriñ Cheikh Anta Mbacke suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko di nuyu mbooleem njaboot gi yëpp di sof nuyoo bi ci nuyoo sëriñ Fallou Gala Sylla mu jotal ñu ko mbooleem nuyoo yëpp ci barke sëriñ Touba. jërëjëf euh, sëñ Modou jërëjëf euh, sëriñ Cheikh Sylla mbokk yi ñu ngi ci ëtt bi nga xam ne ëttu murid saadix la bokk na ci njàmbaaruk sëriñ Modou Rokhaya rek waaye jàmbaar dëgg ak njàmbaaram baraa mën a feeñ mu mu nekk ak waar wa ay jàmbaar wala mu dem bàyyi fi jàmbaar mbokk ko xool ëtt bi da nga ne ndax lii mooy kër sëñ Modou Rokhaya ga ma xamoon ko xool ati bii ndax mooy bâtiment bi fi sëñ Modou Rokhaya bàyyi woon te loolu njàmbaaru doomam ju baax ji mu fi bàyyi di ab taawam di sëriñ Cheikh Anta yal na yàlla gën a guddal fanam gën a dolli ak wéram ci la waxoon ne fas naa yéene moom ba muy dem bâtiment buy senn la ma fi bàyyil ndax lépp lu mu am jox na ko sëriñ Touba waaye bala su ma su ma yàlla nangoo sama ñaan bala maa génn àdduna danaa defar kër gu mu am ba fa ñëw xam ne jàmbaara dëkkoon foofu Euh, bi ñu euh, tëjee Sénégal quarantaine leen la tàmbalee le 2 mars 22 mars ba bisub tey jii Serigne Cheikh Anta noppalu wut guddi noppalu wut bëccëg waaye kenn déggul kàddoom ci rajo wala ci ab télévision na ma ko doon waxee ne Daaru Salaam saa yoo déggee ñu jël micro di wax ci rajo wala ñuy jël image di wane ci télévision ku fi nekkal sëñ Tuubaa baye boo bég te xam ne suñu noppee la loola yow lañ koy wooteel waaye bu dee lu jëm ci seen biir kenn du dégg seen kàddu kenn koy def maa ngi ko tàmbalee woon ca ba ñuy liggéey mawlud bi ma ne booba boo demee déggoo ci kenn àll seen moo ko liggéey ba ñu defar jàkka ji déggoo ci kenn Abdoulaye Ja moo ko liggéey ba ñu defar mbaar mu mag moom nga xam ne fi la ñuy jànge alxuraan déggoo ci kenn jabotuk alaaji Mouhamadou Dioum moo ko liggéey ba ñuy liggéey daaray kaamil ja déggoo ci kenn waa kër alaaji Serigne Diagne Thiès ñoo ko liggéey noonu la Daaru Salaam di wéyee du ñu wooteel kenn ku dul Serigne Touba lu ñu woote rek Serigne tubaa la ñuy siggal loolu moo tax liggéey bi kenn déggu ci kàddu Serigne Cheikh waaye boo fi dikkee xam ne ay centaine de millions na fi waaye mu liggéeyal ko jàmbar jooju kooku nag moo mat a liggéeyal Serigne Cheikh mu di Serigne Modou Rokhaya damaa wax ne nu nit di bokkee ak Serigne Touba bokke na ko ak Serigne Touba bu fekkoon ne mbokk rek doy na ci Serigne Touba te doy na sëkk ndax waccal jamiha ixwati wa nasabi fii rahmatin yow masidaadi nasabi Serigne Touba moom lu mu ñaan yàlla may na ko loola te ginnaaw moo ñaanal ay bokkam ñaanal aw askanam ku bokk ca askan wala nga bokk ca bokk ga ñaan googu mooy yërmande yàlla su ko nangu na te loola am nga ca kon bokk Serigne Touba doyoon na sëkk moo tax ma ne Serigne Modou Rokhaya bu ñu dee séddu ci wàllu bokk day séddu ba doyal bu ñu dee séddu ci wàllu pas-pas nag day séddu ba desal bu ñu dee séddu ci wàllu jëf dana séddu ba desal loolu ana naka nga ko mën a jàngalee ma wax la ne bu dee séddu ci wàllu bokk wax naa ko waxaat ko waxaat ko waaye ginnaaw faatiha bis bu yàlla sàkk sooy julli da nga ko jàng juróomi yoon ci julli yi ca la nga jàngoon rek ngay jàngaat baamu wa wàññiwul dara loolu moo tax dellusiwaat di ko baamu ngir ñi nga xam ne dégguñu ko woon ñu dégg ko ci ñi ko xamoon ñu nafaraati ci wala ñu fàttali ko ci sëriñ Modou Rokhaya damay wax ne sëriñ Modou Mamoun mi ko meññi sëriñ Modou Mamoun mi ko meññi ñaari wàllam yëpp maam ma xaram la ndax sëñ Modou Mamoun maam Cheikh ko meññi maam Cheikh Anta maam Balla Aysa ko meññi maam Balla Aysa euh, euh, ko meññi maam Mor Anta Sëli maam Balla Aysa maam mooy caatu maam soo del ci sëriñ Modou Rokhaya ne sëñ Modou Mamoun ko meññi sëñ Modou Mamoun maam Cheikh maam Cheikh soxna Anta Ndiaye Mbacke ko meññi Anta Ndiaye Mbacke Ibrahima Awa Ñang ko meññi Ibrahima Awa Ñang maam ma xaram Mbacke moo ko meññi ba desuwaatee ne sëñ Mudu Roqaya sëñ Mudu Maamun moo ko meññ sëñ Mudu Maamun soxna Faati Balla moo ko soxna Faati Mbàkke moo ko meññ soxna Faati mbakke maam Ibra Kanni moo ko meññ Ibra Kanni Ibrahima Awañang Ibrahima Awañang Maam Balla Aysa sëriñ Mudu Maamun mi meññ sëñ Mudu Roqaya soxna Faati mi ko meññ soxna Faati Balla Soxra soxna Faati Balla Soxra Balla Aysa Balla Aysa Maam Maharam kon amul menn maamam mu mën a génn Maam Maharam ba desuwaatee ci moom it ne ko Mudu Roqaya dañaan Roqaya Ture Aminta Mbàkke bu Ibra Kanni Ibrahima Awa Niang maam Maharam kon ci kër ndey ak ci kër baay juróom-ñaari maamam yëpp day delluwaat ci maam Maharam mu bokk kook Serigne Touba kon damay wax na lépp loo xam ne ak bokk dana ko maye ci Serigne Touba buñ ko séddalee sëñ mu roqee dana ci jël wàllam ndax bokkee na ak Serigne Touba buñ dellusiwaatee ci fànn googu e, Serigne Touba day am nu mu waat ak sëñ mu roqee ci ñaari maam ndax maam Cheikh soxna Anta Ndiaye mi ko jur ak ah. E, maam Asta Wala mi jur soxna jaara ñoo bokk baay seen ñaari baay yee bokk lépp kon boo demee ci wàllu kër ndey maam Cheikh day daal di doon nijaay yi Serigne Touba bu doonee nijaay yi Serigne Touba sëñ Moudou Mamoun day doon doomi nijaay yi sëñ Touba ginnaaw bu sëñ Touba day doon baayam ba noppi di sëriñam day doon doomi nijaayam kon sëñ bu doonee doomi nijaayam sëñ Moudou Rokhaya day doon sëtub sëñ Touba di doomi sëñ Touba maam Cheikh day doon baay ci moom sëñ Touba di doon baay ci moom kon loolu tegte na ne maanaam pinti pante loolu ñuy wax pinti pante ci ak bokk sëñ Tuubaa koo pinti pante ci bokk yëpp ndax loolu doy na sëñ Modou Rokhaya déedéet doyu ko woon de bi mu doonee ak dafa juddu damay wax ne tawfeex ji nga xam ne moom la ko yàlla defal mooy fii 1886 la fi sañ sëñ Fallou sëñ Modou Moussa ganee àdduna 1887 sëñ Fallou ganee fi àdduna 1888 sëñ Modou Mamoun ganee àdduna Touba booba déggaatuñ fi ku ñu histoire nettali ba 1918 sëñ Modou Rokhaya ganeewaat fi àdduna nga xam ne fi sëñ Fallou ganee àdduna sëñ Modou Moussa ganee fi àdduna sëñ Touba dem ci géej gi dëkk bi raaf sëñ mu Modou Rokhaya fi njëkk a ganeewaat àdduna ci atum 1918 sëriñ Touba it joxe aw turam kon bokk ak doomi sëñ Touba yi foo ganee àdduna dëkk bi sëñ Touba njëkk a sanc nga ganee ci àdduna doy na ab cër ci sëñ Touba waaye sëñ mu Modou Rokhaya yëmut ci cër boobu doy loowu ko sëñ Touba aw turam tudde ko Mouhamadul Mokhtar Mouhamadul Mokhtar soxna xarit Penda ko jur mook sëñ Touba muy boroomi kiimaan bi at mi mu ganee àdduna la sëñ tubaa ne nañ ko duppee Mouhamadul Mokhtar mooma ndax ci at moomu la Mouhamadul Mokhtar génn àdduna sëñ tubaa duppee ko Mouhamadul Mokhtar mu soxna xarit Penda Fall duppee la doomi sëñ tubaa joo xam ne dafa ñëwoon ngir bokk jàpp ci liggéeyu sëñ tubaa bi gis ne sëñ tubaa liggéey bi fu ne fu ne xat na ku ne nga jàpp ci koñ kooku ne ko naa jiitu ji bu naa dem murit bu faatu bu ñëwee ma may ko ndox mu naan bala ngaa ñëw Mouhamadul Mokhtar moomu nag la ko sëñ tubaa duppee kon loolu doyoon na sëkk ak jagle akub cër ci sëriñ Modou Rokhaya waaye yëmut ci loolu mooy ki jàngal maamam jàngal baayam moo ko jàngal fi doomi sëñ Tuubaa yëpp jànge fa la jàngal jàngal moo leen jàngal muy sëñ Daam Abdourahmane Lo kon dayaatoon na ab cër ci wàllu sàkku xam mu am tawfeex yi ba ñëwee ci sëñ Daam daf ko wax ne ko yow kat maa jàngal sa baay sëñ Modou Mamoun waaye maa jàngal sa maam maam Cheikh kon bu yëf yi amoon retraite rek damaa a wàcc kon mu jànge fa alquran ba mokkal alquran lool mokkalin wu jéggi dayo dugg ci njàngum xam-xam yéeme na it te doyoon na sëkk fi mag ñëpp jànge xam-xam fa la jànge bu xam-xam muy sëñ Mbàkke Buso danaan jóge Madina Touré di ñëw ci sëñ Mbàkke Buso dafa jàng xam-xam bi mu jàngee xam-xam te bëgg ko lool gëmee ko moo ma wax ci làmmiñam ne ma hmm, am na téere booba xam ne bi ma koy jàng eh, booba mm, téere bi kër sëñ Mbàkke bu sola am te booba Madina laay jóge damay xëye Madina ñëw ñëw yendu gede su ma yendew gede jàng li ma war a jàng bind ko ci aw kayit dem fanaani Madina bu ma xëyee ñëwaat kon gis ngeen bëgg xam-xam diggante Madina ak Touba lu gàtt-gàtt mat na fukki kilomètre ak nangam da ko daan dox bis bu yàlla sàkk ngir tëral lu si bindu xam-xam dellu fanaaniwaat Madina Touré kon lépp loo xam ne xam-xam dana ko maye sëñ Modou Rokhaya teg na ca tànkam ba am ko yemut ci loolu dem gànnaar sëñ Modou Moussa yóbbu ko gànnaar mu jàngiwaat fa ba bi muy ñëw fii ku ko gën a dégg kàllaam arab jafe naa gis wala ku ko ëpp xam jafe naa gis saa yoo commencé dégg guddi addis bu mu la bëgg indil andil wala abiyaat bu mu la bëgg a andil da ngay dégg mu tari ko da koy romb da koy tàmbalee ci ginnaawam tari ko ba romb ko dellusiwaat boo waxee moo la am njàng day rek di li mu jàngoon lépp kon da ko mokkal ba nopp dégg ko waaye yemut ci loolu mu tarbiyewu nag mu tarbiyewu li doomi soxna yëpp def mu def ko mooy ñu yóbbu ko ci daara yi tarbiya te ko ci loxol Cheikh Mahamadul Moustapha al Karim jàmbaar jo nga xam ne maa xam ne ginnaaw fondation bu njëkk ba fondation Sénas bi sëñ Mourou Moustapha ko def sëñ tuba mooy fondation bu njëkk bi waaye fondation première Sénas sëñ Mourou Moustapha ko def moo ndax moo taxawu taaw yi moo taxawu taaw yi seeni bàyyi sëñ Touba leen defar waaye taaw yi sëñ Mourou Moustapha leen taxawu taaw yi taaw yi taaw yi njëkk yi sëñ Touba defar moo defar seeni bàyyi defar seeni seeni taaw waaye taaw yi yi nag sëñ Mourou ko defar kon bàyyee ñooy birig bi ci suuf fondation bu njëkk bi mooy taaw ya taaw yi taaw yi mooy fondation 10 rang euh, mooy mooy fondation euh, mooy Sénasu 10 yooyu sëñ Modou Moustapha ko defar kon bâtiment bi bu jógee sëñ Modou Moustapha jàmbaar la ci ñooñu bokk na ci jàmbaar yooyu ba sëñ Modou Moustapha naan innal abraara la fi naimin muy abraar ya gaa yu baax ya ña nga ca daaru nahim sëñ Modou Roqee nee na booba bokkoon naa ci ña taxoon sëñ Modou Moustapha naan innal la fi naimin kon yaakaar naa ne ci wàllu tërbiye itam def na ci loo xamante ni bii eh, ba am ba xëy am ngërëmul sëñ Modou Moustapha mu wax ko ne ko sama njëmbata gu jëm daaru salaam goo xam ne ku ko suuxat dana jebbi ku ko suuxatul dana jebbi ku ko suuxat nag bu jebbee soo toogee ca kar ga di watt ca meññeen ma kenn du la wax dara waaye boo suuxatul ba mu jebbi nag boo toogee ca kar ga it téel sa loxo bala ñu laa bala ñu laa wax ne sotti woon ci ab si woo kon yaakaar naa ne jàmbaar jooju lañu war a fàttaliku tey jii sëriñ Cheikh mu ñëw yow nag ci tarbiya googu nga xam ne moom la jëlee ci Cheikh Mamadou Moustapha la sóob ngay doomi Cheikh mu ñu tàbbal la ci daaray tarbiya mu boole jàngal la alxuraan ak tarbiya la waaye teg la ci rek jikkoy makaarimul axlaax yoo xam ne lenn lu sew dawut nangu ñu jege ko. bisimilah jërëjëf Serigne Fallou ci sunu Serigne bu baax boobu di Serigne Mouhamadou Rokhaya comme ni nga ko waxee fi mu jaar ci wàllu tarbiya ndax bala ngay mën a tarbiya nit dangay am foo jaar ci ni ko Serigne Touba daan jàngale ndax Serigne Touba bi muy dafa defaat mag ñi fi jiitu woon foofu la leen jaarale woon dafa njëkkan di jàngale alxuraan di jàngale alxuraan ba egg foo xam ne li ko sunu borom jagleel ci ay xar baax defal ko ko mu bëgg ko def ci doomu yi ci la waxe woon ne képp koo xam ne jàng rekk moo la yëkkati jàng rek moo la yëkkati mën ngaa seeti beneen sëriñ boo xam ne jàngale rek lay def xam ne dafa mu mujjën boole jàngale ak tarbiye jàngale nag mooy jàng alxuraan ba mokkal ko ni ma ni ma ko sëñ mu troqee waxe woon benn bis fii ci kër gi maanaam booba Alaaji Silla moom sëriñ Matar Silla moom moo doon ñibbi Mbàkke ci waxtu timis ba ñu julli timis ba noppi mu woolu Seex Baabu euh, man mii la woo sax ne ma àndal ak moom mu jënd garab yi indil la ko jox la ko nga indi ko diwaan la ma daan wax ma jóg bay dem mu ne Seex Baabu àndal ak moom diwaan toogal mu ne ma dama bëgg nga góor góorlu bu baax ci xam-xam da alxuraan man ko baax na lool mokkal ko baax na lool waaye lettre bu la suñu borom bind la ngir nga xam lam la cee wax lam la cee digal ak lam la cee tere kon sëriñ bi foofu la nàmputaloo ci sëriñ Touba nga xam ne dafa li mu waxoon ne ko jàng rek yëkkati dama seeti beneen sëriñ boo xam ne jàngal jàngal rek mooy itteem moom nag mu sóobu ci jàng jàngale alxuraan ak tarbiya li ngay jàng nga fas yéene di ko pratiquer loolu moo doonoon li Serigne Touba daan def ba egg ci foo xam ne kenn mësu faa egg euh, ba ak jotam mayatu ko ko ba tax mu ne ku ñëwoon ci moom bëgg mu defar la ni mu naan mag ñi da lay wax demal ci ñi ma defar ba joxoon ci message ci Serigne Balla Fall Dieng loolee nag mësu fee jóg ba ñi nga xam ne ñoo ko fi wutu ñëpp ci loolu la nekkoon samp ay daara di fa tarbiya di fa tarxiya di fa tasfiya muy daara yi nga xam ne Cheikh Mahamadul Moustapha sanc na ko mu si su da lim yëpp Cheikh Mahamadul Fadal sanc ay daara naka noonu ñi ñi nga xam ne ñoo topp ci moom ñëpp kenn ku ne samp ne daara ba ci ba ci sëriñ Saalix daara yi mu sanc sanc ba ci xel kom gi mujj foofu nag fa la sëriñ Mahamadou Roqee ndàmp taloo ndax boo xoolee ki nga xam ne mooy maamam di sii Cheikh Sidil Muxtaar li mu sanc ci ay dëkk bari na lool waaye dëkk bu ne ci gox ya nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo aju dëkk boobee mu fas yéene na defar li sëriñ Tuubaa def ci moom mu fas yéene nañ ca ndàmbatal ban xam ka mooy sëriñ bi ban tuddee woon ko samp yoonu sa sant yoonu yoon wi xam ne koo gis rek yoon wi loolu mooy defar sëriñ Tuubaa da ko defaroon ba koo gis rek xemeem yoon wi ba tax na dëkk bu nekk ci ci ci réew mi euh, réew mi fu ne ci am na fa kër fenn fu ne xam nañ ko fa ci li nga xam ne moom la ko sëriñ bi defaloon fu mu mës a dugg itam xam nañ ko naka noonu seex mu Mouhamadul Mamoun mi nga xam ne moo ko njëkk a moom it euh, nu foofu la jaar ndax Serigne Touba moo ko tarbiya def ci moom loo xamante ne bii wax nañ ko waxee waxeeti ko maanaam sëñ Mahamadul Mamoun mooy ki nga xam ne amul bàkkaar loolu day na sëkk kon Serigne Mamadou Rokhaya bu ñëwee di taawub Cheikh Mouhamadul Mamoun jaar foofee ni ko suñ lu waxee ci Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne moo njëkk wutu wuutu Serigne Touba mu def ci moom li mu def ci moom ba xëy indi ko fii ci Daaru Salaam. mu xam ne loolu mu def ci moom nag fas war na koo def ci ñi nga xam ne ñoom la ko suñu borom booleel loolu moo taxoon mu sóobu ci yoon wi nga xam ne mooy yoonu tarbiya wi ko jaarale ngir doomu aadama yi nga xam ne ñoom lañ koy jox mu fas yéene leen defoon ci moom mu def kem kàttanam ba def ko ci ñoom te it bari na ci ñoo xam ne jaar nañ ci loxoom loolee def na ci ñoom lu baree bari ba ci noonu moo ci la ci la ci la sancee dëkk boo xam ne mooy daarul mannaan at mi ko sanc booba Cheikh Mahamadul Mamoun mi ngi fi bu ma jumul 1963 lan wax yaakaar naa ne booba Cheikh Mahamadul Mamoun mi ngi fi ndax 1969 la Cheikh Mahamadul Mamoun wuy ji boromam kon booba ba mu koy sanc Cheikh Mahamadul Mamoun mi ngi fi nekk faak euh, ak njabootam nekk faak euh, taalibe yi nga xam ne moom la ko sëriñ bi booleel di leen fa tarbiya kun ko mas a joxe itam dana li muy njëkk a def ci yow mooy fas yéene nga xam jàngale alxuraan loolu moo war a jiitu ci ab jullit bu la jàngalee ba noppi nag li nga jàng nag nga fas yéene di ko. di ko di ko pratiquer pratiquer boobu nag mooy tarbiya loolu daan def ci ñoom loolu moo sama mu sant daaru manaan googu nekk fa ak jàmbaar yu bëree bëri <laughs> yoo xam ne defar na leen naka noonu demaat fu mel ni Nduuma euh, demaat fu mel ni euh, euh, dëkk bële di ci Thiel ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne bi yóbbu na fa jaam yàlla yu bëree baree bëri di donga yi ko suñu borom booleeloon def ci ñoom lu bëri loolu nag sëriñ Touba ci boppam dafa bind ci xalimaam ne képp koo xam ne bala ngaa beru war nga nekk koo xam ne danañ la danañ tarbiya fa kullu man itasal xab la ihtasal xabla wusulihi wa lam mu murabbin xat ko man waaw képp koo xam ne beru nga te la yàlla dogal na loolu mu wax muy tarbiya jaaroo ci sëriñ bu mat sëkk tarbiya wu la kooku boo ko defee bëgg a a dem xel seen ngaa xuus ci géeju alkane seetaan dana la man bakkan dana la man nafsu bànneex dana la man adduna dana la man te ñooñu mooy noonu doomu aadama yi nga xam ne ñoo gën a sore ci moom te ku nu noot rek fan lay jëmee waliyansu billaahi mooy safaan ba loolu nag la sëriñ Modou Rokhaya daan bëre ba ñi ko yàlla booleel mu fas yéene ba ñooñu duñ man ci ñoom dara yaakaar naa ne képp koo xam ne jaar nga ci loxoom ba fi mu la jaar la woon nga jaar fa ku la gis ko ne dana xam ne yow mii jaar ci loxol sëriñ Mamadou Rokhaya da nga nekk jullit xaqan da nga nekk am murit sadiq itam ndax ak murit da ko daan dund dund gu wér wér ba képp koo xam ne nekk nga ci moom xam nga ne kii ak murit lay dund xam-xam bi sëriñ lu daan wax sax ku ko xamul dëgg-dëgg doo xam ne kii xam bi mi ngi ci moom doo dégg mu wax ba tudd benn ba it mbaa aaya mbaa lenn baa nga fekk mu toog ba yor kurus kooku maanaam ab jataayam rek jàngale la boo toogee noo warta tooge sax dana la wax ne nii nga toogee waroo ko toogee ci anam bam la koy waxee julli yi julli gii ñuy def muy waxtu julli juróom bi nga xamee ne ak kattanam mayatu ko muy taxaw di jiite fii mu daan fii muy toog rek nga xam ne bu waxtu julli jotee mbooloo mu fi nekk mu wax kenn ci njaboot gi ne ko demal ci kanam jiite booy jiite mu ngi lay xool ni ngay jullee loo ci def na ko sudul noonu loo ci bàyyi rek boo paree danga ko dégg noonu lay noonu lay yare bu masaa teg basang itam nga toog nii mag ñi toog ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy dënale wala ñuy def dara ndaw lu ñëw itam war a dem ca mag ña wala nga am neneen noo doxale da nga ko dégg ah, lim gën na bañ itam bokk na ci li li sëriñ bi di jàngale ne mag ci boppam day yërëm xele waaye xele itam day wekk day wekk mag loolu moom da da ko daan da ko daan jàngale bu wér a wér ci ay jataayam ci ci ay jataayam yu baree baree bëri euh, comme daal Sëriñ Fallu ci gàttal fi ko jaarale moom ci ak tarbiya te nga wax ko ci Cheikh Mouhamadul Moustapha ba nin ko indee Daaru Salaam loolu la ñu defan ci moom bari na taaliba yoo xam ne jaami yàlla yoo xam ne suñu borom boole na ne ñoom mu def ci ñoom mu ne waxuma ne sax li newoon ci moom lépp def na ko ci ñoom waaye benn tomb dong boo xam ne jëlee nga ko ci suñ mu troxee man nga cee jariñu àddina ak alaxira ci ay jikko kon ñu taxawoon foofu. jërëjëf euh, sëñ Cheikh yaakaar naa li ma doon junj bari na ci loo xam ne leeral nga ko ci euh, ci njàmbaar bokk na ci ku sanc ay dëkk yu bari sëñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi sëriñ Tuubaa da koo mas a bindal na ko doomi soxna baatub doomi soxna la ko bindal sëñ Mouhamadou Lamine Gaye na ko doomi soxna bu jàngut tilim bu sañcut réer. bu lëggéeyut loof bu jaxasoog buur yàqu ñeent yooyu yaakaar naa ne sëñ mu roxee suñ borom musal na ko ci jàng na li mu war a jàng ba xam ne ko su baaxaloon yam ci borom gaawaan rek nekk gaawaan ba ba addunay tukki kenn dégg na sañ sëñ Modou Rokhaya gaawaan déedéet borom gaawaan moom saa yu ñu ko waxee xel yëpp ci sëñ Modou sëñ gaa maam Cheikh Anta rek lay nekk. su toogoon wane ne baayam la sëñ Touba rafaatale woon Darou Salaam it moo fi gënee adduna yem Darou Salaam bu ñu nee borom Darou Salaam yëpp ci sëñ Modou Mamoun lay nekk. waaye fii ñu toll bu ñu nee borom nduuma xel yëpp dem ci sëñ Modou Rokhaya bañ na ko ba ñu ngi ko dàkkantale sax Modou Foore lañ leen di wooyee lan moo ko waraloon mooy dem ca Foore ba Modou Foore koo dégg ñu naan ko Modou Foore rek xamal ne sëñ Modou Rokhaya lañ ko tuddee waaye bu ñu nee borom tawféex it ñëpp ne sëñ Modou Rokhaya tax ñuy wax kon sanc na ay dëkk fu mel ne nduuma Daaru Manaan tawféex ndumbuj fu mel ne Thiel bari saatoon fenn fu ci nekk dongo yam fa doon tërbiyee ñu ngi fii lu mu ci doon jublu mooy lu mu liggéey rek teg ko ci loxol ki fi nekkal sëñ Touba ci wàllu yar googu nga wax itam bokk na ci ni mu daan yore ku ne xam ne ne boo masaa suñ nit masaa jàngi ba ñëw wane na am na tuuti xam-xam la mu ko doon jàngaloo mat na boo ñëwee bu la sëñ bi testé daanaka boo boo yeexee da nga jàng da jàngiwaat ndax fu ne dana la fa dugal surtout nag ci wàllu nax wu soo ci duggee da lay indil ab baat naan la ihraabal ma lii defal ma lii bu la testé ba bàyyi la yow bu la lay jàmbaar nga rek xamal ne xaw ngaa dee ndax dégg gu mu dégg li mu jàng ak xam nga mu xam li mu jàng waaye bu la dee tarbiya itam dana daan feeñ ci fànn yëpp daana feeñ ci nga sukk ceeb bi tuuru mooy lay xool daana noppi ñu noppi ba noppi nga war a jël ndab liy dem sëñ Modou Rokhaya daana la ci xool daana la xool ci yu baree bari yoo xam ne dala ciy teste soo ko defee rek nga dégg kàddoom nga surtout nag ci dongo bi muy yar ba ci mag ba ci mag maa ngi fàttaliku benn bis boo xam ne dañoo dem ci genn ngan ñu ñu sukka sukk nii di lekk eh, yiñ teg ci kaw dinaar la bi kaw gi jeexee am ku wëlbati sëñ mu na ko jógal soo wëlbatee ginaar gi ñeneen ñi ñëw bu ñëwee lu ñu sukk nga xam ne kon ginaar gi boo lekkee kaw gi rek nee da war a bàyyi damm ab yaxit mosu ko nangu jàpp ab yax ni dama ko nee na bokku ci civilisation ndax bu ngeen ko seeñoo kii topp seen ginnaaw bu ngeen fi bàyyee ceebu kese ngeen nit ku ne war naa lekk ba jóg moroomam mën ñëw mën ñëw mën caa lekkaat loolu lépp ci xeeti yar lay doon yoo xam ne ma ngi ko nampé ci Cheikh Mahamadou Moustapha al Karim kon damay ñëw ak sëñ Modou Rokhaya euh, yow sa waajur ci seexi borom gaawaan yi la bokkoon ñu duppee la sëñ Modou Rokhaya waaye mënees na ci jànge sëñ Modou it makaarimul axlaax ji ko yàlla joxoon ba mbooleem ñi àndoon ak moom àndoon ak borom gaawaan kenn ku ne duppee nga ko amut roqee ak xër gi xam ci xër ci aw turandoo ak wàll gi leen di wàll jikko ji nga xam ne moo nekk ci moom sëñ Modou. bisimilah rahmaani rahim euh, sëñ Fall ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax di mbooleem waa jotaay bi yëpp rafetlu kàddu yi nga xam ni wàcc na fi yëpp comme ni ko sëriñ lu waxee ci sëriñ Modou. E, ci ak bokkam ak sëriñ bi waaye ak tarbiyaam ak taalibeem te suñu Cheikh Diwane si la andi ci lu bari ba ci e, kër yi nga xam ne daara yi nga xam ne sanc na ko lépp ngir tarbiya ngir roy njàngale mi nga xam ni moom la fi maam ju tedd ja bàyyi woon di Seyxuna Ahmadul Xadim waaye ak maam ji maam Cheikh Anta Mbacké ak Cheikh Mouhamadul Mamoun mu roy leen ci lool waaye ci jikko ji rafet ji nga xam ne sëriñ Modou Rokhaya amee woon na ko bokk na ci comme li nga xam ni euh, sëñ Fallou mu koy wax léegi rek ci euh, xam nu ñu yare nit ak mën a yar nit te mooy lu am solo loo xam ni euh, mag sax mënees na koo yar te doo ci am benn jafe-jafe ndax na nga jëflante ak moom mooy comme ni ko sëriñ Cheikh di wax na junje léegi nga xam ne sëriñ Modou bokk na ci nga xam ne ay jikkoom yu rafet la maanaam fonk doomu aadama fonk doomu aadama la rawatina nag ku féete ak moom maanaam am péete moom euh, yemale ko ak dara lépp loo xam ne eh, kii que nee na sëriñ Modou la féeteel ak loo mën a nekk loolam dana lijjanti ba jafe-jafe yooyu nga nekk lijjanti ko lu muy jëflante ak yow nag ca loola bu doo ko waxaat yow mën naa ci joxe eh, junju rek ci ak leeral euh, maanaam koo xam ne xëy na am na njuumte mu ko dab ba mu ba yoon am nante ak moom sëñ Modou mën naa ñëw taxawu ko ba yoon woowee am ko waaye nag mu ñëwaat sëñ Modou nag sëñ Modou dina jëflante ak moom ci anam goo xam ne loolee mu waxoon wala mu defoon ko ba tax loolu am ko du am te loolu bokk na ci dimbali nit maanaam eh, yonte bi sallallahu alayhi wasallam day jàngale ni ab jullit kat bu tooñee da ko koo war a eh, dimbali waaye dimbali ko ku kuñ tooñ ci jullit mooy lan mooy fexe ba mu bàyyi tooñ googee mu tooñoon loolu sëñ Modou noonu la daan daan na ko def eh, daan na dimbali doomu aadama yi ci seeni i aajo yëpp seen i am-am ci am-amam. ci man-manam ci kattanam dana ci dimbali doomu aadama yëpp euh, wajur yi nga xam ne nag euh, ñoo nekkoon nag sëriñ Mouhamadou Rokhaya Mbacké da leen a wonoon ju rafet yoo xam ni dañ koo jànge ci moom bëgg ko ci moom ba yéene ko ci seenu njaboot moo tax ñoom ñëpp kenn ku nekk amal yéene tuddee sëriñ Mouhamadou Rokhaya sa doom ngir jikko yi nga xam ne fekk ko sëriñ Mouhamadou Rokhaya Mbacké mu doon la ci yar njaboot gi nga fi bàyyi itam ñu yoro ci ñu yoro ca jikko jooje ju sell joojee loolu ma waral e, foo maanaam mën na ni Daaru Salaam ak lu dul daar Salaam lépp foo ci dem fekk fa ay Modou Rokhaya yoo xam ne seen wajur ñu ngi leen dëppee dëppee Serigne Mouhamadou Rokhaya Mbacké ngir e, roy ci moom jikko ju sell ju màgg jooju mu amee woon ba loolu moo tax e, mboolem turandoo yi nga xam ne Serigne Mouhamadou Rokhaya Mbacké leen tudde war nañoo bàyyi war xel bu baax a baax ci jikkoom ju sell ju màgg jooju nga xam ne moom làmb woon Euh, te am loo xam ne war nañ ca góorgóorlu baax a baax roy ko ci baax a baax muy fit ak jom ak njàmbaar ak gore ak nangoo liggéey waaye nag jiital na ak taalibe gu mat sëkk ci yooyu yëpp nag su ko defee lépp loo xam ne soxla nga ko rek day daal di euh, day daal di matale euh, su defee kon ci loolu nag xam naa dañ ci profité woo rek ñu itam ci li nga xam ne mooy suñu yitte ci jamono ji ñu toll muy képp koo xam ne su na la sëñ Mouhamadou Rokhaya Mbacké te mu sa sa bëgg mooy li ñuy waajal mu bis sëriñ Mouhamadou Rokhaya Mbacké bi waaye nag ñu xamal la ni la jot nañ ndigal ci sëriñ Cheikh Anta Mbacké ngir taxawal daayira turandoo sëriñ Mouhamadou ay Mbacké sëriñ Cheikh Anta tuddee ko daayiratu xidmatul xadim eh, ci daara sëriñ Mouhamadou Rokhaya Mbacké muy daayira bi lëkkale turandoo sëriñ Mouhamadou Rokhaya Mbacké kon fépp foo xam ne waaye nga fa eh, am fa Modou Rokhaya mu fa nekk wala ñu tudd la sëriñ Mouhamadou Rokhaya Mbacké wala nga am doom joo ko ñu ngi lay woo ci bis bii waaye di la woo ci daayira bi ngir nga ñëw bokk ci ndax fas nañ yéen a kat li ñu bëgg suñu suñu borom defalee ci kattanuk sëriñ bi dañoo fas yéene bisub sëriñ Mouhamadou Rokhaya Mbacké bu ñëwatee mboolem daayira bu ñëw ci suñu ginnaaw ko topp waaye la ciy def fu lépp daayira bi ñoo koy taxawee loolu nag lañ bëgg moo tax nag faaw dañuy woote kon ñëpp yëg ko ñëpp ñu bokk si ngir li daayira yu bëgg mu man ko am dañu loo ko jóg nag am na lu ñu tàmbalee gun di ko waajale waaye nag loolu lépp liñ ci bëgg mooy ñu fexe ba mbokki turandoo yëpp rek bokk ci daayira ba noppi ñu doog a nag ka la ñuy liggéeyee loolu nag kon nag ñu ngi ci woo eh, ci eh, turu bay Moudou Mbekk ji mi nga xam ne mooy président daayira bi. da ngeen da ngeen da ngeen communiqué de. <laughs> ci Baye Moudou Mbekk nga xam ne mooy président daayira bi ñu ko ci ci njiitam lañ koy wootee ak mboolem ñi nga xam ne ñoo topp ci ginnaaw bi ñëpp. képp koo xam ne tam bëgg nga ci ay leeral boo wootee ci numéro bi 77 808 44 00 di nga ci am ay leer bu baax a baax kon ñu ngi woo mbokki turandoo yëpp di woo mbooleem fu turandoo nekk rek ñu lay woo ci bis bi di la fàttali daayira bi. wasalaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam wa rahmatulah euh, sëñ Modou xam naa andi nga tomb yoo am solo ci sëñ Modou Rokhaya waaye jàllale waale nga ci nag ci sa message euh, muy muy ab communiqué naa bu ñu noppee ñu seet ba xam nu ngeen def ba fay ko. kon day mel ne sëñ Cheikh yaakaar naa ne euh, lii la ñu séddee woon ci waxtu wi ñu doon waxtaanee numéro un ci sëriñ Modou Rokhaya muy tomb bu njëkk bi incha allah ñooy daal di ci tomb ñaareel bi ginnaaw bu ñu santee mbooleem ñi nga xam ne ñoo di téléspectateurs yi jàkkaarloog ngeen du ñu seetaan ci seen télévision Lamfal TV eh, mu di seen émission ëttu murit ngeen di ko ànd ak seen bokkum taalibe Fallou Galass Syll alxames du jot bu 20 heures eh, tegalee fanweeri minute tey jii ñu tabbi ci ëttu murit saadix di ëttub jàmbaar yi lislaam di ëttub borom jom doonoon boroomu fit doonoonu boroomu taalibe waaye doonoon ab tab bu daan dimbalee ngir yàlla kook nag moo di Serigne Modou Rokhaya Mbacké ñu dellu di ñaanalaat Serigne Cheikh Anta Mbacké mi ko fi nekkal ak rakkam yi topp ci ginnaawam yëpp suñu borom gën a guddal seenu fan gën a dolli seen wër seenug wér gën leen a dolli kattan ba lépp lu seen wayjur wu baax wa naaloon ñu mën koo àggale di leen jox rendez incha allahu rabbi le 9 janvier fii ci daaru salaam seen mbokkum taalibe Fallou Galass Syll moo àndanu yéen kon incha allahu rabbi alxames bi di ñëw danañ tàbbi nag lan moo waral addiye ji ak ban taxawaay la ci eh, sëriñ Modou Rokhaya amoon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu